ñaari wàll yëpp te it bu sikkatin ci aw yoon nabasat woo xam ne fël na mu sar na nee na bu fekkoon ne mbedd mi da ngaa moom ñaari kër mu seq ko xam ne léegi mel ne bu fekkoon yaa moom sama pàkk bi sës sës ne ci gànnaar ak kër suñu amul bi yaa moom yooyu yaar waaw su la neexee nee na nga ci kaw nga xadd ko benn yoon rek mu jàppale fi ba jàpp ko suñu bi lépp de ci tiim tiim ko mu nga xam ne booy wax ci suuf si taaf bi la tiim xadd bi la tiim waaye day fekk yoon yu sar noonu mu def rek yoon yu saree noonu wax nga koy man te it na kawe ba nga xam ne léegi camion yi mbaa lu fi romb it du yàqu kenn dara moo tax loolu lépp ci yoon woo xam ne dafa sar dama illaa bu fekkee bu yoon wu sar fakkal mil gi kon mu ngi mel ne ki moomeel li jam yi mu ñeel mboole seen ñeneen yi mu la wax yëpp bu fekkee ne da yoon wu sar nga koy man waaye balcon bi waxoon nga tabax ko mu tiim mbedd meeg xadd bi mu wax léegi ci boobu moomee ñaari kër yi seq mbedd mi yëpp day fekk lu yoon wu sar bu fekkee yoon wa sërul moom buñ ña nga bokkal dëkk foofu buñ ci jubloo rek buñ ko nangoo rek nga sañ ko waaye bu loolu dagam yoon yu sërul doo ko mën buñ ko nangoo nga def ko doaay waaye buñ gàntoo sañ ñoo gànt moo tax mu ne falaa yajuus li ahadin minhum ihdaasu rawshanin aw saabatin biha illaa bi isni baaqiyi la jóge ci fakkal mi li jami yi illaa baaba ndar ab bunt mukki ba bokk mooy leef na ko jàddaleef na ko mooy mooy leef na ko xam nga dañ la aaye woon nga ubbi ab bunt mu jàkkaarloog sa buntu dëkkandoo bu fekkee du mbedd mu sar mu ne nag bu fekkee du mbedd mu sar waaye mooyale nga ko buntu sa dëkkandoo jooju waaw mooyale nga ko ubbi ko mu jàkkaarloo mu mag waaw mooyale nga ko tax na mu dagan am te mbedd ma sërut waaye dangaa mooyale bunt ba ak buntu dëkkandoo ji rek kon baax na bu jàkkaarloo moom rek mooyale wa soxoo da naxalat ak ndara yéegug tàndarma maanaam xam nga boo amee tàndarma gudd nga xam ne boo ci yéegee tiim sa dëkkandoo ji lu tax ñu aaye ne la doo doo yéeg tàndarma bi ah kay wa am dara waaye yégal na ko dippiloo xii ci ci ci ki yégal ci nam ma yégal su ngaa yéeg tàndarma gi waaye boo bëgg a yéeg da nga koy wax ne ko ah maa ngi bëgg a yéeg sama garab gat boo amee loo bañ ko gis fat ko bala maa yéeg loolu waaye kenn loo xam ne bu yéeg sa garab gi ndax bañ nga gis lu bokk ci yoon kon bi nga soppeef na ihaaratu jidaari yi abal miiram ba li xar si xasibati ngir samp bant nee na taamu nañ bu la nee may ma ma samp bant ci sa miir bi ni ki bant bu leen baa yooyu nga bàyyi ko mu samp ko loolu taamu nañ ko lool ndax dafa ay dëkkandoo war nañoo defante njëkk rawante ne bu ñuy jullit wa irfaaxun ak dimbale bi maayin ci ndox bu soxlawoo ko dimbale ci ndox ñu taamu nga dimbale ko ca ndax dëkkandoo mat naa sàmm wa fatxu baabin ak ubbi bunt bu la nee ubbil ma sa bunt yi ma jaar fi jàll fi daa gën a gàtt ci man mbaa damaa yàkkamti kon bu fekkee xam nga ne ayut mu romb fa rek jàll du la wàññi dara amul loo ci ragal lu mu fay gis boo liggéey mbaa dara lu mu fay dafay pexe sàcc ko yooyu amu ci kon taamu nañ nga may ko ubbil ko rek mu jàll lépp dañu ñaan rek nga def ko de doowuñ ci wala xool ñal na ko nag an yor ji xam mu dellu gàntu waaw nee na su fekkee ne léegi danga abal suuf nga abal sa dëkkandoo suuf mu tabax ci mbaa mu jëmbat ci waaw du la wax ne léegi boo ko gannaaw ba doo ci mën deltu gannaaw ah kay bu la neexee deltu ci gannaaw waaw bu la neexee deltu ci gannaaw nanguwaat ko waaw ne maa nangu woon gàntuwaat gàntuwaat naa loolu ba neexee nangu ko li mu bëgg wax na mooy nga abal ko suuf ngir mu jëmbat ci mbaa yooyu laata ma koy def nag laata muy jëmbat nag mbaa dara nag la neexee ba tikuwaat gàntu waaw bu fekkee nag léegi da nga ko abal ba mu jëmbat ci nag mbaa mu tabax ci nag wëlbati bëgg koo nangu nag kon nañu def mais fii xaa nekk na ci mu dawana ne in dafa ndem jiñ na maa la nga xam ne an faqa dépensé na ko aw xiimatoo wala xaymaam ja maanaam mu dawoon daa ma fu wax ne boo ko see abal suuf si ba mu tabax ca mbaa mu jëmbat ca bu la neexee ba tey wëlbatiku nanguwaat ko waaye boo ko nanguwaat da nga ko fay peen ba la nga fa peen la nga ko la nga fa peene la nga fa dépensé da nga ko yooyu maanaam nangu ne war naa jaadu wa fi muwaafaqatihi nekk na ci ak dëppoonteem wa muxaalifatihi ak wutanteem para duum danga danga ñu mujj xam nga fi mu toll liñ ne maa anfaqa aw qiimatahoo daa daa xaw a jege te wute maanaam fee dafaa wax ne bu fayee la waaj a dépensé fee mu ne bu fayee wëlër wa waaw te xam nga la waaj a dépensé ak ku xayma wëlër wa mën nga wute waaw mu ne nag ndax loolu ñaari wax yi benn bee wala yaar yaari wax la yu bokkut dañuy jàpp ne fee dafaa wax fay la waaj a dépensé ci jëmmam fee mu wax fa fay wëlëru loola te yooyu mën nañoo bañ a bokk waaw foofu moo tax ñu taraddut waaye nañ foofu tawilaan moo fi gën a wóor maanaam fi biñ fi daan woon keroog boo ko dee seetlu ak wuute dëgg la ci boo ko dee seet ci ak wet xam nga dañ ne woon su fekkee da ko abaloon ab ëttam mbaa biroon waa ji tabax fa mbaa mu jëmbat fa bu fekkee da ko sàkkaloon dele ne ko abal naa la ko ba dele sàng moom du sañ a bañ li fay dele bay àgg moom faaw mu xaar ba àgg ci waaye du sañ a ne ko dama koy nangu mu des nag bu fekkee da ko abal noonu nag waaye wax ko woon dele kooku nag gannaaw bëgg caa jot ni kon sañ na ne kon dama dama jëf sama yëf waaye bu ko dee jël na mu dawoon waxee ci béréb bee ak ci béréb bee daa bokkul ndax bee dafaa wax ne day seet la kooka dépensé woon mu fay ko loola fee mu ne dañuy seet wëlóoru la fa nekk mooy dañuy seet xayma ji ci jamono fa xayma ji toll mu fay loola yaar na lañu wax naa la mën naa sore lool nga xam nga ne léegi ciment ni mu defee léegi ëpp fukki junni am na jamono yoo xam ne lam daa jar dafa néew lool gis nga ciment léegi ni mu fe ni mu gis nga fer léegi ni mu jafee ay jamono mu yomban lool kon xam nga waaj ji tabax bu fekkee bu tabaxee yàgg na boo seetloo boo ko ñëwee delloo la mu dépensé woon moom mën naa néew ndax boo seetee li ciment daa jar waaw ak la fay fer daa jar ci jamono fay boobu mën naa mu néew waaye boo seetloo jamono ji nag wëlëru tabax bi ci boppam nekk bu baax la nga xool fi fer tolloo fi ciment toll yàlla bari lool loolu moo tax ñu ne boo ko dee seetlu aw wuute wu réeré la am nañu ne aw wuute la am nañu ne mënees na koo dëppale mooy. fenn fa da caa jublu fu mu tuddee xiima ja fu mu tuddee xiima ja kon mooy ba nga xamee ne la mu fa def jënd ko indi daa fekkal mu am ko rek ni matériel mi ñëw defaree ko ko waaye jënd ko kon su boobaa la ñuy seet xiima ja fa waxee nag léegi ne ma am faq la mu dépensé da caa jublu rek la bu fekkee la mu defaree foofu daa dem jënd ko ci xaalisam ñëw def fa su boobaa kon ñu topp loola waaye maanaam xam naa ne daal bu dee koy àtte ci zahir rek moom atte wëleeru loola rek ci jamono yi fa mu toll maanaam topp xayma ja rek nga moom daa bëgg a nangu yoon ci par force ñu seet la kooko defan ci benn ñu xayma fi wëleerum toll léegi rek mu fay loolu daal bu dee saa yi rek mel na ne moo gën a jaadu ñu delluwaat ci ñaari baat ñu waxan raw chan bi ñu waxan ci nit mooy balcon ñu bari xam nañ ko waaye liñ bëgg a wax rek mooy sa bâtiment bu fekkee dafa tiim mbedd mbedd bi mbedd bi ñëpp ko moom yoon may na la sa balcon bi nga tabax ba ci mbedd bi sa tabax bi nga yaatal ko yaatal bu mel ne ku ci def lu mel ne werandaay fa mu yem ba jëlaale ci mbedd bi lu bari mu tiim ko bu fekkee kawe na ba nga xam ne ku ku mën romb la wàññi dara oto yi mag yi sax bu ñu fi jaaree la wàññi dara baax na su ñu waxoon tam wasa baatin li ma ko misaale woon ci sama wàllu kër gi féete gànnaar ak kër édir yi ku xam ñaari kër yomb naa xam waaye mën nga ko mën ngaa wax ci waxin wala koo xam ne ku dégg xam mooy su fekkee ne da ngaa moom yaari kër yoo xam ne ñoo seq meen mbedd te jàkkaarloo waaw ngaa moom yaari kër yoo xam ne ñoo bokk seq meen mbedd te jàkkaarloo waaw mën ngaa tabax lu mel ne tabaxub terrasse mel ne ab xat bu terrasse boo xam ne kii mbedd bi rek jàpp ci kër gii ba ci bële nga xam ne ko aw ci ron mbedd yi ci sa ron tabax bi lay aw jàll waaye nag kawe na ba nga xam ne léegi du yàqal kenn oto yi mag yi sax ak lu mu mën di sëf lu mu dem dem ba ca kaw du tax mu laal sa tabax boobu nga xam ne yow mën ngaa bàyyi ko ci sa kër gi rek dem ci kër gi ci kaw ni ngay doxee rek waaw mel ni ko aw ci pont ci ci ci pont rek waaw loolu faslun faslu bi dañoo toll ci almusaaraha almusaaraha mooy société ci mbay nam bokk bay daal likku lin ñen n képp sasqul musaarahati tebbi bokk bay ga maanaam tebbi société mbay ga in lan yóbbu far ndem jixeefu ko ndem jixeefu ko nee na bu ñu waxantee ci bokk rek bay waaye jotu ñoo ji gis nga jotu ñoo ji rek génn ci réseau boo bëggee génn ñu bay naa buñ ko xasee ji nag moom jeex na li fekk jiwaguñu rek moom la neexee bàyyi wasaxat wér na moom musaaraxatu in salimaan de mucc na ñoom ñaar min kiraa in ardi ci lu leen suuf sa di moom noo xin ci lu ñu tere nee na nag musaaraxam daa ami sart ñu koy tax wér ba ci njëkk mooy bu ñu dee luyee suuf la ñu luyee suuf sa bu mu nekk loo xam dañuy aaye ku ko fay ci luyee suuf suuf loolu nag mooy aw ñam ngay luyee suuf luyee ko ñam dañ koy aaye moo xam ñam la wu suuf woo xam ne suuf a koy saxal mel ni pepp ak yooyu mën naa nekk lu mel ni lem nga xam ne aw ñam la waaye suuf saxalu ko mën naa nekk loo xam ne suuf a koy saxal sax te kenn du ko lekk mel ni wateen yépp dañuy aaye ku ko liyee suuf kon nag sàtt li njëkk a sàtt mooy boobu mooy nay mucc ci liyee suuf sa ci loo xam ne yoon dana woon dañuy aaye ku ko liyee suuf moo tax faraa bi ne min kiraay ardi bi shay'in mamnuhin kiraa'uha bi wa huwa at-ta'am walaw lam tunbithu al-ardu kasamni bi diw ñor wa hasali nahli wa ma tunbituhu wala tatulu iqamatuhu biha walaw ghayra ta'amin ka khutnin wa kattanin wa qabalaha teg jàkkaarloog suuf sa musaawin aji yamonte waaw dafa wax ne maanaam bu fekkee ne kee day joxe suuf ka ci des moom di joxe leneen te loolu bu mu doon jiw la keneen koy joxe muy liggéey ak loxoom ba andi matériel dañ koy liggéey mel ni fas yaag nayaag yooyu mbaam ya koy liggéey waaw nañ seet ku seet loolee kooku andi ci wàllu liggéey ak loxoom ak matériel baag fas yaag yooyu mu war a jaaduxanteeg jëmi suuf si nga xam ne moom la koy joxe loolu mën naa nekk kee mën naa joxe suuf kee moom joxe ak liggéeyam ak matériel ba nga xam ne moom lañ koy liggéey loolu mënu ci ñàkk man la sara bi wax naa wa mafhumu musaawin fiihi tafsilun fa in qaabalaha aksaru min kiraa'iha bi kasirin fasadat wa bi yasirin uxtufira waaw maanaam bu fekkee ne kiraa joxe suuf kenn moom amul suuf waaye la mu war a joxe ngir mu wecc suuf si moom mooy andi fas yaag matériel yi ci liggéey ku seet ne wëlëru wëlëru fas yeeg matériel bi indi moo ëpp solo lool suuf si mu ko ëppee daa bari kon musaarax bi yàqu fekk la mu ko ëppee bariwul nag du yàqu waxta saawayaa te ñu yemoonte ñoom ñaar ñu koy def te ñu yemoonte mooy kenn ku nekk la ngay génne di ko joxe ne yemoog la nga war a am bis mbay mi ñoree di sax jumuñ ne faaw ñoo yemoo ba lañ lañuy joxe yemoo waaye ku ne daal la ngay joxe lañ la wax ne moom nga yem nañ nañ jelloonte illaa li tabarruhin dara ngir ak coobarewu wax dal xaq ji ci gannaaw fas ga nee na nag bu fekkee ne xas ngeen ko waxante ba juboo ba xas ji xam ne mbir mi taxaw na yooyu jamono kenn ka bu wëlbatikoo nangu loo xam ne moo ko nangul boppam yooyu jamono du wàññi dara nit ki mu nangu ci liggéey loo xam ne ëpp na la war a liggéey mbaa mu nangu ci joxe bénéfice loo xam ne waru koon a jox kee waaye nag bu ñu koy nangu coobareem la ndax fekk na ñu waxante ko ba xas ji mooy illaa li illaa an yakoon xadamu tasaawi li tabarruhin min ahadi sharikayil musaaraha bi siyaadati xamalin aw qadrin mimma yaxruju lil axar waaye bax dal xaq dina kooku falaa tafsudu inda min qaasim wa in kaanat indahu laa talsamu illa bil batri muraaxaatan lil qawli bil luzumiha bil xaq min qaasim sax ñu waxee moom doonte aguñu ci ji waaye fekk nañu waxante ba juboo ci lépp yem gannaaw ba kum neex moom ñu waxee kum neex mën naa wal bëti ku bàyyee moroom ma loo xam ne coobareem la muy ca liggéey ba muy ca buñ gisee doo mbay ma waxaltu badrin ak jaxase aw jiwu in kaana dem am na nee na su fekkee nañu wax ne kenn ku nekk daa war a joxe jiw nga xam ne kenn képp du ko joxe ci nañu waxante kon nee na nañ génne jiw yi jaxase ko boole ko walaw bi ixraajihima ak doonte ci seen génne ñoom ñaar la nee na sax jubluwuñ ci ne day doon jaxase jaxase bu réer liñ ci liñ jublu rek mooy buñ boolee jiw yóbbu fañ ko war a ji rek waaw ci benn ci benn tool rek ci seen suuf rek mu daal di baax waxi ñenn ñi sax moom doonte bañ demee ba ca tool yi kee daa beru fee di jifee aw jiwam kee beru fee di ji aw jiwam loolu du ko tee baax xam yaa moom la borom saraa bi wax naa walaw kaana bi ixraajihima ay bi ixraaji sharikayi l musaaraxati badrihima wa zarhihima fi naahiyatayni mutamayisan kullu badrin minhuma xan il axar hada qawlu malikin wa bnu lqasim radiallahu taala anhuma fa in lam yambut ndem saxut badru ahadihima jibu kenn ci ñoom ñaar waxu limate xamees ko lam yuftasab kon deful limaale bi ci moom in xarra ndem war ma nee na bu fekkee ne kee daa berfee ba ñu ji kee berfee ba ñu ji di teewu leen sax bokk di bay mais kon bu fekkee ne kenn ke soxlewut te la ko te laata muy ji xamal nañ ko bu ci ëpp xamal na ko ñu di ko jiyee di sax daa bëgg na war kii rek waaye xamal na ne lii tey jiw waa sax am na ca kooku nee na bi ñu ko waxee xam ne ko wax ne ko yow soo jiw ba léegi yaa ko moom yow soo jiw yow dong yaa ko faroo bu tee nga bokk ci aw jiwam li mu ji nag waaye kon danga koy robb sa genn wàllu jiw yi waaw li ci bu fekkee da ngaa ji bëri ko moom mu ji bëri ko fekk na yow sa bëri ko xam nga yow du sax danga koy ji rek ngir nax ko waaye xamal nga ko kon nañu jàpp ne sa bëri ko li saxul yow dong yaa ñàkk bëri ko bëri ko mbee sax yéen a ko bokk waaye danga koy robb sa juróom fukk kilo koy robb sa juróom fukk koy robb sa la tolloo juróom fukk kilo ya moom lay wax naa waxal léegi war na ko moom borom jiw yi saxut nis lu nis fin naa biti kenn genn wàllu aji sax ja jiw ba baax te sax fi toll nii du tee mooy moom genn wàll la waaye nag day day genn wàll googu daal di fay la tolloog moom. dañu waxee foofu nag bu ci tegoon ne waxa léegi ay dan nisfu kiraa'i ardi ma lam yambut wa nisfu qiimati ma amal waaw su boobaa kon lay gën a matale xam nga mu nga xam dafa war genn wàll googu nga xam ne ci la jiwoon te saxut. xam nga bu fekkee dañuy luyaasul suuf sa xam nga tooñ na foofu nga xam ne faaw ñu fay luyaas ba su boobaa nag kon ba tey mooy fay genn wàllu luyaas suuf soosee nga xam ne ci la jite saxut ba tey xam nga sonn nañ ci liggéey ca ndax ba muy liggéey foofu kee moom ma ngay liggéey fii ñu jàppoon ne liggéey bi dina am njëriñ te xam ne moom li ñu def da am njëriñ kon wa illaa bu fekkee xamu ko woon nag faxalaa kullin kon war na kenn ku ne nisfu badalil aaxari genn wàllu jiwu ko ca des maanaam bu fekkee ne kee ba muy ji bëri boobu xamutoon ne du sax da yaakaaroon ni baax na farul sax yow ne yow nga ji sa bëri bu mu sax ñu jàpp ne kon ba tey yéen a bokk lépp bëri boobu da nga xam ne saxut ba tey ma daa mel ne moom genn wàll ga nga moom genn wàll ga kenn ku ne ci yéen ñaar ñàkk na genn wàllu bëri ba su genn wàll gi sax nag ba tey yéen a ko bokk te loolu amul si dara kenn amul si moom dara ngeen a bokk rek si genn wàll gi sax mooy faxalaa saaxibil badri allazi nabata مثل نصف البدر الذي لم ينبت وعلى صاحب البدر الذي لم ينبت مثل نصف البدر الذي نبت وصرهم تنبيما بينهما نكنا سين ديغنتي ñaari atte yi mu atte rek lay lay daaneel ne wasarxu baynahuma wax nañ ko léegi sax ci sarawi wax nañ ko itam ci waxi wala fi mooy bi kii bi jiwu kee saxee te kee soxliwut te ñaari anam bi nga xamee ne ki soxliwut moo ko tey xamal nañ naka jekk du sax ak bi nga xamee ne teyu ko waaye lu ci mën doon rek ñoo bokk jiw yi ñoo bokk la sax moom mooy wal saraxu bay na xama te leeral naan ba tey nan ko bokke nañ ko bokke ka am tasaawayaa ni ki bu ñu yemoon tey fil jamii ci lépp ñu bokk na ci anam yi dagan ci bokk bay mooy lépp yéen a ko yemle suuf si ci ñaar ñëpp la bawoo liggéey bi ci ñaar ñëpp koy def matériel ba ni ki fas yaag yooyu yëpp yéen a ko bokk def ko ca jiw it noonu yëpp yéen a ci marché yam ku ne daa joxe loolu baax na aw xaabala wala tolloog badra ahadihima jiwu kenn ci ñoom ñaar xamalum liggéey mais nangu nañ kenn ci joxe jiwu kenn ci féetewoo moom bay ci tool bi ko defee suuf sa nag fekk na moom ñoo ko bokk wax nañ ko bokk moom mbaa dañ ko bokk léegi mooy sara bi wax naa wal ardu mushtarakatun baynahuma bi milkin aw iktirain gannaaw buñ bokkee moom suuf sa daal kee laa joxe jiwu kee moom féetewoo liggéey tool yi loolu baax na aw arduhoo wala suufus kenn ki woo batrahoo aku jiwam yooyu yaar ñu jàkkaarle ko liggéeyu kenn ki maanaam kenn ki daa joxe suuf boole ci joxe jiw kenn mooy féetewoo liggéey dong loolu nangu nañ ko fa jublu aw xaabala xamala ahadihima min hindi sharikihi arduhu wa batruhu ay ardu wa batru sharikil xaamili ki day joxe suuf ak jiw kenn mooy féetewoo liggéey ba dong aw baxduhu wala lennam aw baxduhu da ci jublu kenn ki day boole liggéey ak joxe lenn jiw kenn ki mooy joxe jiw mënu beneen moom la jublu ci aw xaabalal arda min ahadihima wa baxdal basri xamalun min al axar wa baxduhu ak ay wa baxdal basri wa mufaaduhu anna ahadahuma axraja al arda wa baxdal basri wal axaru al xamala wa baxdal basri kooku fa tasixu sharikatuhuma li bëgg wax mooy kenn ki daa joxe suuf sa ak lenn jiw wa kenn ki féetewoo liggéey bi joxe waal lenn jiw boole ci waaw kooku itam sart bee moo koy tax a dagan in lam yan kos ndem du manqué maa la nga xam ne lin xaami gi ñeel na aji liggéey ja xan nisbati badri yi walis tolluwaay jiwam wax la ca bande mooy ki nga xam ne mooy liggéey tool ba noppi te joxe ne lëf ci jiw lañ ko waxal ci mbay mi ñoree day yées li mu joxe ci jiw li mooy moom mooy mooy ban waaw nit ki li mu joxe ci jiw mooy daa yam ne ci genn wàll ci jiw dañ sart ne buñ ci àggee la muy am mooy ceex mais bu ñoree dañu am mooy ceex kooku day bu ci boolee kii kooku lañ koy aare la sara bi wax naa di an saada maa yaqusuhu minhu an nisbati batrihi aw saawaa li baax daal mooy la war a am bu soobee yàlla dana tolloog li mu joxe woon ci jiw mbaa la mu war a am moo ko ëpp safar ne wa ma foofu in la ñaan ko su mooy annahu in naqasa maa yaquduhu alxaamilu an nisbati badrihi ka ixraajihi sulusayil badri xala an yaqusa sulusahu fala tajus li muqaabalatil ardi bi baxdil badri bu fekkee moom boo ko seetloo jiw yi moo joxe ñaari xaaji jiw yi ba defoon ñetti xaaj waaw te ñu wax ne bu ñu ko àggee moom léegi ceer ba lay am ceer ceeru mbay ma lay am kooku moom du baax aw li ahadihima wala ñeel kenn ci ñoom ñaar ak jamihu lépp lépp la ilal xamala dara liggéey ba in xaqadaa dem fas nañu ko bi laf fi sharikati ci baatu sharika nee na itam bu fekkee ne kenn rek mooy joxe mboolem suuf seeg jiw yeeg matériel dañ koy liggéey yépp kenn koy joxe kenn ci moom léegi du wees lu may liggéey dong la ci boole liggéey bi rek bayum toll dong la yor waaye lu loolu kee koy joxe kooku nee na buñ ko wooyee sharika te bañ ko wooyee ijaara bu baax ndax buñ ko wooyee ijaara day mel ni kon ci moom yépp te waa ji liggéey tool bi day mel ni kon kooko day liggéey loo waa ji di ko fay te xam nga xamaguñ lu ñu ñore ci mbay bi kon day mel ni ijaara boo xam ne yaa ngi liggéeylu te te umpale la ngay la ngay fay bu ñu ñu sottee moo tax ne kon nañ ko defee ci baatu sharika dañ tudd baatu sharika waaw te bañ a tudd baatu ijaara al jamihu ji boo ko xoolee saraa bi mooy al ardu wal baqaru wal badru wal adatu yépp kenn ko joxe xam ne kenn ci liggéey bi dong lay def liggéey bi loxoom rek fay na mooy ilal xamala bi yadi fay na xalal axar mel na nga ne wala ko arbuhu masalan mel na nga ne mooy moom kaaru lal ijaara ci wax ñu buñ tuddee baatu ijaara aw atlaqa wala ñu boyal ñoom ñaar boyal mooy ñàkk dudd ñàkk ràññee daa wax ne bu kenn ci joxee mboolem jiw ak lay ànd ci mbay ma nga xam ne kenn ci mbayum loxoom dong lay amee li ci seetewoo kon nee na suñ tuddee baatu sharika mu dagan waaye buñ tuddee baatu ijaara day mel ni kon kooku day baylu di faylu di waxut maanaam tabatee xamuñu la muy fay kooku nu muy toll dëgg-dëgg nga xam nga ne bu tuddoon ab kaar it taxagul ñu xam kaar ba nu muy toll su mbay mi ñore loolu moo tax kon buñ tuddee baatu ijaara mbaa ñu ne pat dañu wax lenn patt bi dañ ko daal jàppe ijaara moo tax yooyu yaar moom du dagal ka idxaayi ardin ni ki wàcc suuf wa tasaawayaa te ñu yemoon teg xayraha lulu suuf maanaam fii xëy dihaa rek loolu maanaam mel na ne léegi su fekkee dañoo jublu ci bokk bay ñu wax ne kenn ci mooy joxe suuf si waaye day mel ne moom rek moo ko joxe noonu kenn du ko tuddaale fekk na suuf si am na solo ci jamono waaye ñu wax ne kenn du ko tudd ñi ci des daal ñoo ciy bokk yem ca ni ki jiwu waag matériel baag liggéey bi yëpp kenn mu joxe suuf noonu rek rek ne jamono suuf amul la waaw kooku itam su boobaa du dagan li wax naa fala tasihu sharikatuhuma li duxoolihima ala tafawuti mën ngaa jàll ci sara bi la ca mu dawan wax waaye li rek la wax ñu benn aw li ahadihima wala ñeel kenn ci ñoom ñaar ardun suuf raxiisatun si aji yomb waa xamal ak liggéey xal sax ci wax ji gën a wér ñaañ daa wax xal sax waaye xal arjax moo gën a wóor ci la gën a ba indi yoon sax maanaam bu fekkee ne kenn ki daa joxe suuf te jamono suuf tax koo bari wóolal amul solo moom mi nga xam ne moo joxe suuf si nga xam ne amul wóolal nag nga xam ne cee boole liggéey ak loxoom xam ne mooy liggéey ak loxoom bu aajoo ay nag ak ay fas ak ay matériel tam moo ko cee def kenn ki moom jiw dong lay joxe waaye kee joxe suuf mooy liggéey mooy indi matériel mooy indi fasa yooyu bu ci aajo yi bay waaw kooku lañ koy aaye moo tax mun a walil aaxari al basru te daa joxe al ardu al raxiisatu boole ci liggéey bi koy xeex kenn moom joxe jiw yi fa faasidatu li li muqaabalati al ardi bi baxdil badri yooyu jamono moom boobu boobu day aaye wa in fasadat ndem yàqu na moom musaaraxa ba wa takaafa te fekk ñu yamante woon ca xamaloon ci liggéey fa bay na xumaa ku nekk na seen diggante moom bay ma wataraat daate ñu deltoonte xayruhu lu bokkut ak moom nee na bu fekkee ne nañu waxante musaarax ba yoon da koo seet baaxut buñ ko teeloon yëg te tàmbalee buñ dañ ko daal dindi rek bu jeex waaye li muy wax nag mooy xas nañ ji bay liggéey mu ne kon ndegam nañu wax ne liggéey moom ñoo koy bokk yem ca bu ñu amee wuute leneen la waaye liggéey moom ñoo koy bokk waaw kon nee na buñ ci àggee dana yomb lijjanti kon dañuy bokk mbay ma te kenn ku nekk ñu seet la nga xam ne mooy sa àq la la sa morom naroon yóbbul ci bu ngeen wéyee ci noonu ñu jox la ko te mel na ko yóbbul misaal mel ne bu fekkee ne kenn ki daa joxe suuf kenn ki joxe jiw loolu lañ ko aaye woon waaye ñoom noonu lañ defante ba noppi wax ne bu ñu àggee ci bay bi ñor dañ koy séddoo ci digg ba lu mel noonu su amee dañuy wax mbay mi kon mu nekk seen diggante ñu seet nag lu ku ne nara yóbbu sa morom rek dañ ko ko yóbbu moom lay wax naa wa huwa al ardu wal badru fa ala saahibil ardi mislu nisfi makilatil badri li saahibihi wa ala saahibil badri nisfu kiraayil ardi wa fasadat li muqabalatil ardi al badra ñu ne bi nga ne kee day joxe jiwu kee mu joxe suuf te mbay mi nga rey ñoo ko séddoo ci digg ba waaw waaye liggéey moom lépp ñoo ko bokk def kon boobaa buñ ci àggee dañuy wax ki joxe woon jiw ne ko yow mi joxe woon lépp jiw wi na la kii remboursé genn wàllu jiw la ne jiw wa toll woon ci am natt ki joxe wutoon jiw na la jox genn wàllu ku toll noonu borom suuf si ne ko yow mi joxe woon lépp suuf si it na la waa ji fay genn wàllu ku luyaat suuf sa ku luyee woon suuf si lañ ca war a fay lépp la jox genn wàll la kon kenn ku nekk delloo ko sa morom la nga ko war a delloo wa illaa bu fekkee bokk ñu yemoo ci liggéey bi nag falil xaamili kon mbay ma ñeel na aji liggéey ja waxale it war na ko ak ajula ci bay ga kaana moo xam nekk na lëfoo di ko ñeel badrun aw jiw maxaama ñu ànd ak liggéey aw arbun wala suuf aw kullun wala leen lu ne di kulli ñeel na képp ci ñoom ñaar ñaa na su fekkee ne kenn dong mu wéetewoo mbirum mbay bi waaw kon nag dañuy wax moom mi féetewoo mbay mi ne ko faral féetewoo maa yow mi féetewoo liggéey bi sa loxo waaw faral féetewoo mbay mi beneen ñu seet nag loo war a jox ki nga xam ne moom laltoon dara ci liggéey bi muy laltoon dara ci mbay tool yi ñu seet loo ko war a jox ba jox ko te mel ne yow yaa moom lépp nga xam ne bu dee li ñu njëkk a wax nga xam ne day kaana dafa badrun maa xamali maanaam moom gannaaw bi nga xam ne moo liggéey lépp lépp boole ji teewul joxe woon dara ci jiw waaw teewul joxe woon na jiw ñu ne boobu daa joxe jiw boole ji kenn moom joxe woon suuf dong waaw yooyu jamono kon lu mu ameel kooka suuf rek lu yaa suuf rek la ko war a fay nga xam ne moom moo liggéey liggéey bépp te moo joxe jiw yi kee moom suuf rek la joxe kon dañ jàpp ne ana la kii lu yaa fay suuf rek wala nga xam ne moom moo liggéey liggéey bi moo joxe itam suuf si waaye kee nag moo joxe woon jiw waaw dañ ko wane kon yaa moom mbay mi waaye nag léegi